Heavyweight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 Seck ñëwoon Sénégal waroon dellu France gi mu jógee le 21 ci weer wi waaye fi mu ne nag li ko dal doy na waar ndax ko placé sous mandat de dépôt depuis le 8 février bi gannaaw si ñu ngi ko doon atte ci tribunalu flagrant délit bu Ndakaaru di ko toppee li tubaab naan coups et blessures mbir moomu nag nee ñu nii la demee waa ji maanaam ay jab jabar la am waaye jabaram ji di woo ci turu moo ko accusé ne daf ko dóor ba damm loxo bi te ndaw si bi muy ñëw tribunal loxo bu ñu plâtre la fa indaale ak certificat médical am ay waay ci kanamu juge bi nag jëkkër ji nee indi coow li yépp ba mu nekkee ca bitim réew dafa woo jabar ji nekkoon na génn kër gi jabar ji lank ba tëdd ci naaj bi ne mu yegg see Sénégal ëllëg si rek la ko buub ak i bagaasam yëpp dal di génne kër gi te nag bi mu koy def loxoom laalu ko dalu ko dëgg la nag xuloo nañu sànnantay baat waaye ba léegi loxoom jogul avocat jëkkër ji tamit ne bi mu koy génnee kër gi ci la ko doon forcé dal di jàpp loxo bi xëcc naka noonu ci la loxo bi amee blessure ci la ndaw si demee uti certificat médical am yóbbu mbir mi ci yoon waaye nag li gën doy waar mooy ndaw si ci boppam ba mu xoolee jëkkër ja ca kanamu yoon daf koo yërëm dal di désister. ah dee waay <laughs> ko nag xanaa sa yaram dana daw. moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax. Sénégal beneen cas am na de ndax gannaaw ba mu déggee ne Ousmane Sonko dañu koy libéré maanaam libéré ko ci wàllum amnistie. Adji Sarr bajjo ba waxati na ma ne mer na de ndax nee na d'accordul tey ëllëg ay waay Sénégal ndax neen duñ ko teg liñu ñu ko teg yen ko li ñu ko yen ci kanamu àdduna bi yëpp yoon def ci li mu war a def ba noppi bëgg a jaar ci beneen porox ndollu dal di teggi li yoon def nee na nag fi mu ne dina faire xeex ba maara deetaali ma ne ko déet waaye aji te xam ngeen ne nag fi mu toll ni Ousmane Sonko li ñu ko mujj a toppee ci mbir moomu du wàllum viol waaye li ñu naan corruption de jeunesse yeneen chef d'inculpation yi tegu ci kawam yu état bi moo ko ko teg waay mi yëngu na moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax la xew ca liberté 6 romb na doy waar ma nga xewee ca cité baraka ab gaz daal moo fa explosé de fay faat ñaari nit waay wax leen ci gaz yi kenn ki di ab xale bu am juróom-ñaari at di wuyoo ci turu Bekande ka ca des di ab maag at yi toll ci juróom-benn fukk di wuyoo ci turu dee Jallo moom ay gaañu-gaañu la ci jële woon gannaaw ba ñu ko yóbboon nag ca l'hôpital dalal jàmm bu Géejawaay moom it mu mujj faa jaare génn àdduna ma ne wax leen ci butéelu gaz yi butéelu gaz yoo xam ne ne ñoxor njaay mu explosé ñoxor njaay mu explosé war nañoo saytu bu baax a baax a baax a baax a baax xool butéelu gaz yi di dugg ci biir kër yi ba xam baax na am baaxul mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz